ñi ngi nekkoon ci afaaku siir yi ci Cheikh Ibrahim ci Mohamad Abdoulaye ibnu Sid ibnu Atosan ci lañ nekkoon jeexu doon xasida bi nekkoon ñu ngi ci paaso cent vingt six bi ci ñaari lu xaaju téere yi naari lan la wax mi ngi doon ndokkeel bàyyi ci ñu gi seen gi ahlan bi max la ka sayil sayil xaalil la si

maroon yi nga xam ne moom lañ maroon yàlla ba ci guddi woowu ba nga ñëwee lan Maria dem maa ngi naan ko alan alan bi saalikal wacci bi saaka wacci min samsin waxaa tiika sama ili min sasa wa sahaa wa sahaabi alan ak yelloo bi saakal wacci boobee ano min samsin te mooy jant jëmm ji nga xam ne jën karkaram mooy jant jikko lañ min sasaa mi ngi bàyyi ko ci xëñ goo xam ne xëju sasaa la war soxaat ak loo xamante ni mooy xobulam jikko yoo xam ne moo gën a neex parfum moo gën a neex xobu xobule xobulam jikko yi nga xam ne moom la yàlla jox bàyyi ahlan bi maqdamika sa yi boo karama faqaami óoli noxaa wal am jaadi ahlan yàlloo ah bi maqdamika sa ñëw ci asa yi xam ne dafa saf saf boo woof du kaa ak sa délégation alkorama ñi nga xam ne délégation te dina ànd alfaqa ñi nga xam ne délégation bu ngan lañ óoli noxaa ñi xam ne borom xel lañ al am jaadi ñu sa dañ def bàyyi bàyyi ne na man du ma ànd ak ku dul ponkalu borom xam-xam bokkan dafa am xel ana asiru axtati saynoha maa ngi lay ndokkeel maa ngi ndokkeel bi la gaa wax tamit si ni ñu am tiraanga lañ ñu ngand lañ ñu am ah, xel lañ ñu am borom tiraanga lañ seen wàllu yi ci ci amee bàyyi ah, xadimal imaamul aalimiin murtada si ah, lu doafi wa nusatul afraadi xadima ñëw na kan moo ñëw al imaamu iliman ban iliman Mohamad Abdullah al aalimi ki nga xam ne la bi maanaa imaamu aalami imaamu aalam bi imaamu aalimi al aalami bi maanaa ku xam la te aalami ya la insaanu aalami ne nitu kan mooy international la al murtada kuñ gërëm la moo ñëw mooy kan zillu doa fi mooy keppaaru ñu néew doole ñi keppaar mooy ker dañuy kerloo ñu woy néew doole kii mooy seen ker gi ñu yerloo wanu satul afraad yi pormanaatookaay afraad yi nit ñi nga xam ne ay kilifa yu mag lañ seen pormanaatookaay mooy bàyyi xam nga ngay jël ngay jël xam-xam ba yaakaar ne man maa nekk ak ñoo nga dikk ci bàyyi mu la ne yaa ngi dara ko jàng dara ko jàng fii mooy formanatukaay bi ah kon nag ñu ngi nii de ñu ne ko waaw Mohamad Abdoulaye nga ne kan mu ne xadimal makaarim sayidan wa atal xudaa cheikhan wa ja alxaqu ah, sa eh, sa xadima ñibbisi na almakaarimu tiraanga ya tiraanga yi ñëw nañ bàyyi mooy jëmi tiraanga yi ànd ak tiraanga yi bàyyi ñu na kon tiraanga yi say ren mbir moom tàngal nag waa ataa ñëw na amul daa njub njub ñëw na mooy bàyyi mooy jëmi jëm ñu ne njuboo mu ne say kan mooy sëriñ sëriñ bi mooy jëmi jub waa jaa dikk na alxaq xàqu xàqu ñëw na seetal de ci raa ngay ñëw nañ kan mooy sangam njub ñëw nag kan mooy sëriñ bi dëgg ñëw naa mooy kan jaal xaqu saa in jaati kertane may borom ak tabe mi nii ah nii waqadaa damaa iru lil masarati musri an wasafaal xawaa woo wawud kulli ma aadi waqadaa mujj na addamaa iru xol yi musirande fireeku kontaan li ma sarat ndax kontaan xol yëpp fireeku nañu bi maa ñëwee eh dëgg-dëgg yàlla dëgg-dëgg yàlla nga nekk jamono bàyyi bàyyi ñibbi si nga dikki eh, nuyu si ko xool ko ah booba neex na ko yàlla man daal gars yi nag naxe naxe ne foofu waaye nag ñun day kàtt alhamdulilah bi nga xamante ni ñun man nañoo dabaatal ndaxte ku demul fenn boo ca ñàkkee yaa xamul nañ koy dabaatalee ñun xam nañ bàyyi demul fenn mi ngi nii ñibbi si na waqadaa damaa'iru musrihan li masalati wasafaa set na alxawaaw jaww ji jaww jaww ji bi mu dikkee bàyyi jaww bi mu dikkee jaww ji set na ah wawuddi kulli maadi ak mbëggeelu képp koo xam ne ah dafay delsi ñoom ñëpp ñoom seen mbëggeeli set nañ wecc tey ah ñoo naa bàyyi ñoo na woote sa yenam seen xaalu bi ci la si min orfi otrat wa balhal jaari woote sa yenn taaru na Sénégal Sénégal Sénégal taaru na lu mu taaroo biro ci ci jëmm wala ci karkaram alis yaa xamante ni min arfihi ca parfum ba xoccra lañ ci parfum lañ parfum Sénégal Sénégal parfum bi ñu ko parfum xee mooy Cheikh Ibrahim xeñu Sénégal ne bëll Sénégal xam ne bàyyi xeñam gi dafay wër ak dafay wër dëkk bi mu ne ah cam waaye Sénégal neex na waaye ñi nga xam ne dañ ko parpoint Cheikh Ibrahima Niass ah at fii atra woobal xal jaadi bàyyi bi nga xam ne ñu naan daye tabewoon nangam nangam nangam bàyyi jooju waa ju tabe jaadi gi dafa ñu nga bàyyi dëgg dëgg mooy xëy moo tax ñu nga boo gisee jaw nekk ci dem ci jaww yi eh, eh, jaw yi jaw yi kër baay bi maanaam nga dem fi nga mooy jëppal nga xam ne fii la eh, nokkeem gi doon naawee des fois dana ma ko dikk laa <laughs> ilaha illallah su ma nit ñi sëñ bi ko laa <laughs> ilaha illallah kii la toogoon fii la doon fanaan ah fii la nokkeem gi doon nokkee nga dem dafa nokkee mm-hmm. ah waaye war war ngaa moo tax dëkk ci kër ga sax oh. war ngaa xam li nga dëkk fan la boo fa defee ay musiba rek dañ muy musiba waaw kër ga foofu te màkk foo xam ne prix néegam yàlla prix yàlla boo fa def mu dañ lay dàq moom foofu amul jéggale amul bale fooy ci biti ah moo tax foofu ko fay demoo nga xam kër gi ngay dem nga xam kër ak tiraanga la kër ak wéegu la ah pare na ngay gisee buñ changé gouverneur yi buñ changé buñ changé président gardien yaa ngi ko nañ fa moom tey fa gën a nekk de kon nag Sénégal neex na ay waay Sénégal yéen a per a a parfum xam nga lii xam nga lii bu ñu koy jàngaloon ci kër Baye Baye gën a teel xam nga lii bu ñu jàngaloon ni ñu xam eh, waxuma Sénégal xam nga naar yi naar eh, ñoom bon bu ñu dikkee xeñ gi Sénégal jaww Sénégal ci cim ne rek. nim na waxuma nag jaww yi mbiri na teewul tim la waxuma nag nga dikk ci ne kër bàyyi ko xam ne mooy moom la tànn ci Ndakaaru fii laa tànn fii nii laa ilaha illallah këram Dakar moo di jëppal xam nga jëppal moo di jëfal kon fay du bàyyi dina taal Ndakaaru ak li mu taxal boo koy wéy ci jamono yi abu abu moo fi nekkoon <laughs> yàgg na de aw wécc mosuma ko wéccee benn kër ba ma xamee man 83 ba tey du génn kër du benn foqatan daa ko ci ak xibaar amul ah kon nag moo tax baaba daal wax dëgg yàlla ñu ngay mbokk na nga bëggee moom kër bàyyi ko yéen a de ah mu ne yaa oddati bal nusfati wa masarrati wa muraadin ala wa baabu muraadin yaa oddati yow mi nga yaay sama préparation bàyyi mooy suma jëmi waajtaay moom mooy suma waajtaay man Mouhamed Abdallah bal nu soti sama pormonaatoo kaay yow yaay sama pormonaatoo kaay su ma lay xool rek ndax pormonaat mooy loo xam ne yaa ngi koy xool boo dem ci diggante di xool garab gii da xool yëpp pour naat ngi mm-hmm. waaye xamoon ne faa jële mbégte waay yow sama pormonaatoo kaay wa mësarati yow mii nga xam ne yaay sama wa muraadi yaay sama nangel al ala bi gën a kaw sama namel wa baabu muraadin ci yaay sama namel yaay sama namel yaay sama namel ma ne kon ma ne ab ab ab e, abattanil ak waaru al ana kataaj kataajirin abattani ak waaru al ana kataajirin mutaajiban fi yaqsati wa ruqaani ah mu ne ko nag abattani yaa ma tàmmal bi maanaa yaa dapitu at al atwaaru ay tourni al aana léegi yaa ma dapetul ma nekk ci ay tourné ka taajir mel na ko commerçant mel na ko jibril moo xam ne commerçant la mu taajiban mu yéem fi ak sa tii sama yëg bi maanaa commerçant boo xam ne mi ngi xool bitig bu mu yéem ko man maa ngi mel na ma itam tàmmal boo xam ne may dem maa ngi mel ne commerçant xam dama yéemu fii yàq sati ci samaay bu ma yeewoo warul koo di ak bu nelawee man maa ngi mel ne xam noonu koo xamante ni commerçant boo xamante ni dafa manqué ba muy nelaw ba mu yeewoo noonu laa mel ci yow Cheikh Ibrahima fàtte naa lépp mu taxayiran maasa wasa wa ila mata ana hakasa warabu bin misali mu taxay ren damaa gëlëm waaw maasa lii la lii la man amul xaw ma lu ma lii wasaa ak lële wa illaa matte ak bakkañ man tooguma laayatuma dara naan waaw lii la nag lële lan la waaw kañ la am naa man xaakasaa nii laa nekkee man man man Mohamed Ibn Abdoulaye man laajatuma kii ak lii ak laa dara xam nga boo amee loola doy la looy leneen man laajatuma len ndax lan war a bi bil mit saat yi mi ngi nekk ko ma jigéen rëbb baa nga ma jigéen rëbb bi ak kam moo jég dina la kala bi mit saat yi min fadla akrami wahidin qurban yuwasilu nii li kayri ji wax maa ngi taxaw nag man Mouhamed Abdoulaye mu taraqiban maa ngay maa ngi nekk nag maa ngay xaar min fadli akrami waay bi ngëneelu ko gën a tedd ci maykat yi maa ngi koy xaar sama wàll mu jox sama wàll qurban ma jege ko rek jege koo xam ne yow sir daf may jokkale li kay di jawaar yi gàqale moo gën ci way may yi man loolu laa yaakaar ma am ko ci Cheikh Ibrahima maa ngi koy xaar la ko lu ñun ñu ngi xaar lu ko bàyyi fi Mouhamad Abdoulaye mii wóyee wii ba mu ko wóyee ba kenn firi ko kenn wëy ko ñu ngi nii wëy ko firi ko fii fam jaar lañ bëgg a jaar nag jigéenam jigée jot lam jot nañ ko jot nag te buñ bàyyi nag jàllu <laughs> dégg nga loolu laa ci boole yàlla moo yokk ni naa de lii laa bëgg de qurban bii xidaman alextu asal arjo rahma tanaquli wat bihaadi maa ngi bëgg nag xurban jege bii ci bàyyi xiddaman boo xam ne jege démb la woon xaalitu damaa aju ci bàyyi démboon waram asal dama jóg mukk arjo da ko yaakaar nag man maa ko jege aju ci moom dama jóg da ko yaakaar raxmatanaku lii ak bu yeboo sax na may bëri ay wayaas wa bi aadi ak na ma sore nekk te mu tanis ak lu ma bëri bëri tourné lu ma bëri bëri tukki ak lu ma bëri bëri dem ah maa nga ca dem te kat gis nga fi nii daaw am naa def si yoo xam ne daaw daaw jéeg maa ngi ko jàngale ko xam ni nga gisee moo demee xam ni lay dugalee def si sama def si mujj maa ngi ko defee kaw eh, corona bi laata mu jiitu corona bi foofu def si noonu la ko doon foofu bàyyi foofu dama feeñoo ci kawet ci koñe kawet nga xam ne kon ma da nga man maa ngi doon dem di demaale ci biir am naa lu ma doon yóbbaale ji nga fi nii naar yi dañoo interdit téere bàyyi bu ñu ko gisoon coow dañ lay kii man ut naa benn sac boo ko xam maa ngi ko denc sa koy téere bàyyi fa nekk maa nga yokkale ñu ngi ci Dubaï téere bàyyi fa nekk lu muy wàll benn téere waaye bu ma demee rek daal di génn téere yi commencé jàng dama ko dénkaani foofu puisque boo ko jaaree ay pare bi bu kii nag ah mu ne mu ma Oustaz Gueye xanaa na ma ko tàkk mm-hmm. na tukki wax dëgg yàlla seet naa ne moom ah benn benn kii benn liggéey na lu ma dikk dikk ba ngoon jot naa joxe si ah ñu tukki ci ñu waa hôtel bi yëpp ñu bëri dikk dañu dikk di dem si sama taxi bi ci sama sama sama néeg kon nag lii de moom laa bëgg nag jege boo xam ne am lu ma sori sori maa ngi la jege ah inni woy in asbahtu taaliba dirhamin lam adda minka bi hijratin al ihmadi ah jibi dafa mel na daal yow tey wa inni man Mouhamad Abdallah wa in asbaxtu même boo mujjee taaliba dirhaman di wuti dërëm ay dërëm man Mouhamad Abdallah su ma ko cëre maa ngi uti ay dërëm lam arda du ma nangu min ko ca bi ma gàddaay la ak ixmaat wala sama sama pas-pas bi soo fay ak lu ma uti uti xaalis bëgguma laa bàyyi bëgguma sama bëggee fay mbaa jëlu yaa ngi dégg wax jooju kon dafa mel ne kon xam nga yow dana dikki dafa mel ne que pays lii ko moom ah <laughs> mii ngi nii de uti dërëm de wa in asbatu taaliba dirhamin même bu ma mujjee de uti ay dërëm lam ardamin ka bi hajrin aw ixmaati bëgguma laa wacci bëgguma sama taalu la gën fay ah mukk kon nag ñun tam bi ngi muy bàyyi xaasi habibil Mustafa wa muradihi an yutruka dofa bi xëyri imari xaasaa sell na xaasaa sell na koy firi kon habibi sama sopp al Mustafa habibil Mustafa soppe Mustafa sell na moom soppe Mustafa wa muradihi ak koo xam ne dafa nam Mustafa set na koo xam ne dafa sopp Mustafa nam ko seet na an yutraka ñu ko débayi addo afa ñaa xam ne ñoo néew doole bi maanaam Moustapha seet na du def loolu néew doole tax ngay dem ne yaa ngay toppatoo jara mu bàyyi seet na du la bàyyi de bi kay imaad yi ci lu mu def rek nag dëkk sa keno moom du bàyyi du bàyyi ku néew doole ak néew doole te du ko jàppale moom Moustapha kon nag ah kon nag nañ ci bokk nañ ci jibril bokk xaayi nag kon nag Moustapha du bàyyi ku néew doole lu mu ko bàyyi bàyyi ah xanaa du ko bàyyi rek ak niw doolem sala alayhi ilahi wa mi ah, mu idihi listiri fil ijaadi wal imdaadi salla yal na julli alaykum ilahul ilahu ilahoo ilahum yàlla mi nga xam ne mooy ilahum yàlla def ci moom woo mu ay duhu te moo koy préparé listiri ci sir boo xam ne fil ijaadi ci ijaad wal imdaad sirul ijaad ak imdaad maanaam maye ak jël may yàlla na ko def salaat boo xam ne daf ko gisal sir boobu waroo ay dan yoxane woowu mi ngay wax moom ma Abdoulaye di ndokkeel ihtifaaloo cheikh radiyallaahu li mawlid Moustapha mooy gàmmu woy wi ñu woy si maa ngay woy de ndokkeel gàmmu ko ah, sa li mawlid Moustapha sallallaahu alayhi wa sallam ah, saada faqri wa kaana jamman suhoodi maa aral yawma min juhoodin wa juudi saada dolleeku na man Mohamed Abdoulaye Lan faqri sama ndam li ma doon tiitaroo bàyyi tiitar bi dox dolleeku na wa kaa nekk na jamono de ma janoon janoon naa maa aral ma gis al yawma tey min juhoodin farlug nit ñi woo juhoodin ak tabi gi ma gis ci digg mbir mi man de ni ma gis nii yokk na sama titre ni ma bëggoon bàyyi maa doon tiitaroo bàyyi waaye ma gis tey ci mbir na gii yokk na tax sama titre yokk na moo tax bëgg ko war a bëgg da yokk titre waaye boo bëggee ko xamee du comal gàcce ngay dëkki man nag sama titre yokk na saada faqri siirul imaamil mujalla naatul xaqil munilul mawrudi saada dooleeku na faqri sama ndam li lu ko dox lu ko yokk siirul maanaam siirul imaam yi jikkoy imaam bi jikkoy imaam ci jikkoom ci yokk na suma ci al mujalli wala boo fekkal moo nekk numéro un bu ñu ne mujallaa ci kursu mooy course ba yaay numéro un imam bi nga xam mooy numéro un ci ilimaan yi teewul dëgg la mooy numéro un ci ilimaan yi xalil ini jaay la naasi imam jooju ku ko imam ko njëkk imam boo xam ne laahu ko nome ah soo xam ne dëgg imam laahu de waxuma imam xam <laughs> boo xamoon ko kii mooy imam al mujjal nga ni naajul kii boo dikkee naa si xàq bi làq xam nga yaa ngi ko doon jàpp fële mooy naa si xàq kële kële naa si xàq la kii naa si xàq bi làq la rasul xàq bi mooy naa si xàq rasulaay bi mooy naa si xàq bi làq maa mas ngaa dégg loolu bii <laughs> nag moo ko dégg <laughs> ah <laughs> kii mm. ah <coughs> baawu pare déglu ko ci déglu ko ci itu mau koat ya eh? <laughs> yow xam nga léegi day nit ñi xam nga léegi dafa war dafa war foo toll buñ ne faati lima uxliq faati xaati war ngaa xam ne faati xaati bi ka ko doon muy kii ah faati lima uxliq xaati na naasiril xaqi bil haqq warzuq wal haadi ila siraatika almustaqim mooy ki nga xamante ni mooy kenn ki nga xam ne numéro numéro ba ka nga xam moom moo taxaw nag di bi nga xam ne mooy insaanu kaamil foofu la li kenn naa def kon nag kii may wax mooy naasir xaq nga ne kii mooy almanhalu mooy naanekaay ba almawrod bi nga xam fi lay rootee moo boo déggee mbalka mi ngeen ñëpp di naane satado bi nga xam ne mooy mënal kii mooy satado bi nga xam ne bi ñuy rotee kii mooy satado bi xam nga ni nga gisee satado ah nga xamante ni fii ñi ngay jële yëpp ah ci nga xamante ni mooy ca Lac de Guiers Lac de Guiers moo jël na satado yi ñuy indi fii mooy Lac de Guiers nag dëgg dëgg dëgg Lac de Guiers mooy woon nag kii mooy lag de Guiers mm-hmm. ah bàyyi mooy Lac de Guiers mm-hmm. saada faqri tafarrude seyqi ibra ibrahima bi sadri fil masari hamidi ah yokku na faqri sama ci tam maama rabla lu yokk si tata tafarrude seyqi wiitaayi sama sëriñ ibrahima bàyyi nekk yi nekk ci maqaam boo xam ne kenn ma su ko ca fekk mu nekk ci yokk na sama ci tam ndaxte xam naa ne kon am naa sëriñ bu kenn amul sëriñ boo xam ne moom amul ko tollo moom moom laa am mooy sama ci ibrahima bi sadri ah ci fi nga ne mooy kiliftaane fil masaari ca doxee kaaya arab yi nga xam ne mooy doxee kaaya xam nañ cee sant waaye mooy jaar moom doo nga fa mas a jaar kenn mosu faa jaar moo fi njëkk jaar ah wa tamaadi fi iktisaabil maali غير مستوقف ولا مجهود وتماديه أغني باي كونتيني فكرها بمعالي علي ده فانكو فانك فاقو يكوي باي نيم أنا يكوي كونتيني فاقو يكوه يقن مجترمان خير متوقف دور كو تخاو ولا مشهور كن من كو يدد كما نيدي باي وكما نيدي باي بكو يدد غير mi ngi nag li yàlla li defal baay lii nag taxal sama ci dafa yokkoo kon ñu taxaw foofu asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. E, ba mu dikkee ci uwa mu dikkaat e, ñu ne waaw léegi nag uwa kii bi mu fii lan moo tax ji nga laaxu ji nga wër yu njëkk yëpp kenn mësta bët laaxu te laaxu mooy kat laahu moo ko ne dañ koo soxlaal mooy faj soxla yi loolu du yàlla yàlla loolu du tawhid allahu moo tax seet yaan nihaayatu ak daa booy bidaayatu bañ dikkee ba ci laahu ne dara amul lu may laahu fa lañ taxaw waaye génn laahu ak a jafe te nag boo laa ilaha illa huwa dàq laahu ne amut la mooy huwa nga dikkaat ci huwa ne foofu lay tax mu ne laa ilaha illa anta nga dikkaat ci anta nga laa ilaha illa ana moo tax ñu tuddee ko bàyyi boo demee nag loolu lañ tuddee ay fanaat do ben jeex da ngay jeex ay jeexi jeex loolu boko defut do dem nak li nga xamanteni mom moom fu lañ bëgg dem té nek li ñun deug deug yalla dañ bëgg buñu déggee alquran xam lu tax woo huwa halimun bi kulli shay lepp lu shay lepp lu shay rek huwa xam nako ah léegi ngi dem wa is fatakul fàttakul rabbuka xee rabuka bi sa borom bi loolu allahu de ilaahu ko de xam nga rëbb mu wut xalifa xalifa ab rëbb ak xalifa ab laaw bokk bokkuñ de fii rëbb mooy wut xilaaf ku ko wut wa is qaala rabbuka lil malaa'ikati inni jaa'ilun inni man dey jaa'ilun kuy def laa fil ardi xalifatan ab kuutal daf ko ne kiraal nga am alif ak laam xalifa dafay réer ci ñi doo am alif ak laam damay def ci suuf xalifatan wa xalifa moom rëbb moo wax dëgg rëbb bi moo ne da koy ut ku ko nekkal fii xalifa ak yàlla bu ko waxee du xalifa ak kay nekk kay génn kay kay moo tax du xilaafatu eh, irsaal du rasulu irsaal rasulut takrin kon nag aadama dafa dikki fekk loo xam ne xamuñ nu mel ca kennam ka mu dikk wan ñu ne kenn ka nekk kenn rëbu balaahu bàyyi ko ci laahum de uluhiya uluhiya dikki ci rëbu de rububiya rububiya kenn xamul ni mu taxawee aadama moo dikk aadama rek moo taxaw te booba milliards yi milliards yi doomu aadama yëpp ñu ngi ci benn aadama kon ni nga fa gisee lii fi bëri bëri bëri benn aadama moo fi am loolu moo la xam ne yàlla benn yàlla rek ñaar yàlla amul ñetti yàlla amul kon aadama wanee kaay la ñun nag ñu demaat beneen beneen beneen point bu gën dëgër ci ñun Cheikh Tidiane waxoon ne kenn ku ci nekk un bala yàlla feeñewoo yow rek la ko feeñewoo ba ko Cheikh Tidiane waxee ba tey ñu toog ba léegi ñu ut da empreinte sa fukki yi boo ko dóoree sa un bii kenn mësu koo nekk ci li passé fi ñu nekk kenn koo nekk ba àddina tukki kon na yàlla mi la may un boobu da ngay nag lii xam ko suñ ko xamee rek jàmm na ñooy tawhid moo ñu tax a jox tawhid bu amut dara du dem bàyyi na nag bunt bi mu ubbi ci foofu kenn mu ko ubbi loolu laa bëgg ñu xam na kon nag <clears throat> moom nag moo def lii ne damay ut xalifa damaa bëgg gaay ñu xool kon xilaafa moo njëkk ci njëkk ci euh, liggéey bi yonent ki doog ko dikk wilaaya gi doog ko dikk ci départ bañ dikkee ba ci yonent yàlla Muhammad mu def ministre yonent gi commencé wilaaya gi dikk xilaafa gi mu jàpp loolu nag laa bëggoon ñu seet lu tax nag xilaafa mu njëkk ca kaw mu jaar ci suuf xam nga lii moo damaa bëgg ngeen am fëtu yoo xamante ni looy janoot la loolu soo ko defee ci nga xam ne ah kon nag te bëri na wuyu baay yoo xamante ni buñ leen ko fekkee ne dégguloo li ci la ko fi lu ñu ko firile loo ko mën a dégg ndax lan léegi man laa jàpp mukk ni xilaafa njëkkee lu dul xilaafa lu mooy da nga ko seet ci alquran ndaxte bi yonent dikkee ne kunt na bien xaarifat binu booti xam naa nabira xam naa nabira wala adama kële moom a ma itam kuntu waliyan aarifin bi laati wala adama bàyyi naa ne bi kën siyatin xat kuntu xam la taaruf yéen ba ngeen di ne man man man mii man maa nekkoon ci kën siya ba kon si ko ko loolu kay loolu boo fekkee ne xamuloo nii ni mu nekkee ci kii mën ko ko mën koo teg te dama damaa bëgg nag ñu xam fi ñu taxaw ñun kon kii ne maa ngi def nag dañuy jaay fi àddi xalifa na ah ku ko wax rëbb waaye la kon démbay tey rek arabu ndaxte boo déggee rëbb rek moom bu la neexee yàlla saayiroom nga ñu ne ko rëbb boo ko nekkee jalaalam nga ñu ne ko rëbb boo la neexee wilaayam nga ndax alaahu wal waliyu ko de laahu mooy waliyu laahu huwa mooy waliyu lu la wax kon nag boo ko neexee mën na dikk ci saayiroom nga waxee ca wilaayam nga waxee ca lu ko neex waxee ci waaye nag boo amee fët bu ma sëkk bu waxee kàddu gi ne ah ba muy wax lii de ci martabab sàngam la ko waxee kon nag rëbb moo xut xalifa isqaal rabbuka lil malaikati yan malaaka yan malaaka puisque dafa am malaakab sa xol yi xaali la ak malaakatu saafili la malaayikatu saafili la doon waxaat nag moom moom aadama waaye ko nag ma yàq na malaakatu aali na malaakatu aali na mooy malaaka yoo xam ne duñ si jotal aadama malaka yi yëf yooyu nekk suuf nak ñom jibril ak yoy ñoo bok ci sujjóotul adam waye amna malaka yo yoo xam ne du sujjóotul adam mukk ah kon nak <clears throat> mu ne nag nii man setal xam nga lu bo digge ma bëgg arab ngeen diko ko diko di xam nga lu lu war lu war wax ci say ci say ini man de dana def waye ku def la luñ def ak lu nga def naa ko kon day wan nit li nga dem li am ngi dëkk am nga wër am nga dëgg am na ini mu tax boo tax ñu ne jumlatul ismiyati adalu mina subooti bi jumlatul fiiliyati yéen ñi nga xam ne yéen a def araab tuuti jàng ci araab ba am ay kii da ngeen di déglu nga xam ne lii yëpp doo ko demee doo ko jëlee ci classe mukk foo xam ne bii moo fi indi mu daa yow laa fi war a indi damay indi lu dëgër lu wan ne li ma wax dëgër na xam nga ini aj alu la waroon def mu ne jaayilul kuy def si laa kon ñi nga jël ismu tur wi teg ko ci place mu daado bi ndax lan gën a dëgëral ne ah li may wax man lu am wala wér na ne am na fi laa di xalifata ah ab xalifa dinaa koy ci kaw suuf si ah malaaka lu ñu wax xaaloo ñu ne ko ah astaj aloo ndax da def yaa ci man koo xam ne yëpp su da yàq fi suuf ci ay mooy waaye su ku muy tuur addima deret yi ndax ku xam ne lii mooy liggéey moom nga naan def ci suuf woon naa ne te ñun malaaka yi nu sa bihu ñu ngi sàbbalee bi xam ka sa xamdu bi <laughs> xa dégg nga xam nga yàlla mënoo koo tasbiyee lu ma ci am doom bi ana am doom bi nag luy am doom bi ñoom malaaka yi sax xamul ñuy tës ñuy defee tës bi ñun ñu ngi lay tës bi ci sëmb bi nga bëgg ñu fa ci nag mais yaa ngi uti keneen mu nekk mu nekk suuf bi yàq ah dégg naa boo dégloo xéeféer yi xéeféer yi wax ci WhatsApp léegi ak rajo sociaux yi ci arab ñu ne ñu ne aadama mii dañuy wax aadama du benn aadama ay millions yi aadama jiitu woon nañ ko nañ dem waaye day day xam xam ne xamul lu ñuy wax bu waxee ñu bàyyi ko ay waxam ah malaaka yi nag fekk malaaka yi li tax ñu wax ñi doox ak kontor waaye jaaxle leen taxal ndaxte bi biñ gisee moquette bi nga xam ne ma tax te boo gisee plan nga xam ne lii la tëralul basaria basaria tëral doxinam mooy bëgg àddina bëgg yu bànneex xeebante xeexoo lii lañ gis ci basari bi ñu ne ko waaw yow ku ku mel ne que ni nga bëgg a def ci suuf te ñun ñu ngi fi nii yàqaluñ la dara waaw ñu ne yàqalu nga bëgg fi indi koo xam ne yàqat lay lay nekk ah ah ñun nag lii lay nekkee naanu nag nasu bi bi xam ni ka wa nuqaddisu laka ñu ngi lay defal taqdis tasbih ak taqdis da ngay setal ci biir setal ci biti ci butoon yëpp sa but sa awla sa ak yëpp dafa koy dañ cee taqdis moo tax léegi ah ñu ne waaw <clears throat> léegi nag yéen bi ngeen defee lii nan ngeen tasbihee nan ngeen sàbbale yàlla moo tax boo xoolee boo gisee suñu diina ji mooy diina ji légal seetal malaaka yi ba nga xam ne dara amagul xaalamul arbaax wàcc wàccagul ci xaalamul asbaax subhanallah laahu set na laahu yaa set ay laahu set na ay laahu set na bay yàlla waxee nag usjudu li adama nit ñi dañ fa ne mooy dikk jëg déedéet wàcc leen ci xaalamul arwaax dem ci xaalamul asbaax dugg leen ci jëm yaram ji malaaka yëpp dikk wàcc ci nga xamante ni mooy aadama yëpp aadama ak aadama amul ñun ñëpp suñu ruu yi nekkoon waxtaan ñëpp ñu ngi fii ci ci aadama gi léegi nag aadama lu mu commencé mooy tam aadama moom alhamdulillah alhamdulillah moom ci ko jëm yi moom mooy jëm yi nga xam ne moo tax na jëm jëmi cant gi mu ne cant gi kat laaw rek ko moom laaw rek ko moom ñu si loolu mooy sa moo doon saabalu aadama ñu dikk ba ci noonu ah léegi nag noo moom fekk nañ wuddan suwaa yàqoo sa yaxoo ka nafra ñetti këri tariqa juróomi këri kon tariqa <laughs> yàlla na yàlla mosal li xaw Sénégal tey gis nga lii ñu dal nii tey du tey démb la woon léegi ñetti gannaaw gannaaw Idriss diggante moom ak noo daayiratu wilaay moo fa dul suyee mu naqaree xam nag ndax dafa day suy ci kan ñeex juróomi këri wali yi ñoom ñoo yore woon diina ji de ko doxal ñee nga sabawu ñee nga doomati jëndal boo demee dafa taal naa ci téere boo xamante ne kam fu ko tegal sax boo demee ku ci nekk am na foo xam ne fu la ndëkk naka tey kenn ko ne sa këru xam bañ demee ba mu yàgg nag seytaane yeneen yii ñii duur na ñii ñoo dem seen yàlla bàyyi li xaw bëgg a xaw Sénégal tey jël sa sëriñ ne mooy yàlla gis nga lii ngeen may wax nii tey su fekkee ne noo dafa dikkoon fii ci Sénégal noo tey bëgg a oote benn yàlla dana fi am ñaari junni at te lu am <laughs> du am ndam maar yi muy wax maar yi ma maar yi muy wax maar yi bu dikkee sant sant seen sant yu rëy ah xam nga ñoom taal ñoom ñeen yeen seen seen sant yu rëy na waaye ñun Juuf ñun Juuf sant Juuf tey wala mu sant <laughs> Géy Jooro wala mu sant ñoom dégg nga am lu ma xamul laa ilaaha illallaah kenn du ko faale maa ko wax ñun gis nga damaa bëgg nag bu ñu génnee fii bu ñu kenn faqa salati luñ gis nag xam ne mooy dëgg dañu xam ne dëgg dëgg sant dara yàlla sant yàlla ba na mu sant sant dara ñu ne ko nag yow dégg nga aadama kon nag nit gis nga loo tax noo noo ne laa ilaa ilaa laa laa ilaa déedéet déedéet déedéet benn laa am benn laa am gis nga loolu rek moo lu si garamam léegi nag Ibrahima dikk na fekk nag Namrud jamono boo xamante ni ku la gën a bari alal yaa ngi koy xamee ci étage yi moo bëri guddi ya yaa ngi koy xamee ci këram yu rëy ya ku la gën a bari xaalis moo lay gën a rëy euh, këram Ibrahima dikk fekk kenn ku ne kër bu nekk ak seen seen këram ñu dikk kenn ku ne sa xewu këram da ngay wax maa fi gën a def lu ma telal maa gën a telal sama këram bi danaa ko jox loo xam ne kenn ko jox Ibrahima ànd ak ñoom ba nga xamante ni ah jeexal nañ Ibrahima ah man daal maa feebar. moo tax Ibrahima allahu akbar allahu akbar la wax moom déedéet ponkal kenn benn ponkal am allahu akbar allahu akbar allahu akbar ji nga moo tax ji nga boo xamoon ne wirde wirde tijaan yi wirde ak kii wirde kenn ku ci ne kon malaaka yi lii moo leen seen dogu wirde subhanallah aadama benn dog alhamdulillah ah da nga non laa ilaha illallah bindi kii Ibrahima ne allahu akbar muy ñeent ci yonent yàlla Muhammad dikk na fekk nag tawidu afaat bi gën a të boo gëmoon yàlla ñeenti gëm yii te weddi ko ci tawidu afaal jëf jëf soo ko ci weddu rek doo doo doo mën a dem mu dikk na laa hawla wala quwwata illa billah amul kattan koo fi am amul ko fi am dara lu may laaw amul pexe am kattan yàlla am pexe kattan fii nag tawit bi mooy tawit bi nga xam mooy dikk complété say tawit nga baax la waajur xam nga lu ñu yàq dañuy dem gëm yàlla ba pare ñëw na ca xam ne xam ne ku mën a def ku dul yàlla loolu du baax ci taw taw yi tànk yaa ngi ne yàllaa fi nekk mu kon nag waaw kan moo la bes xanaa moom waaw kan moo la may xanaa moom lu weex kan la xanaa moom lu neex kan la xanaa moom feebar kuy feebarloo xanaa moom kuy wérloo kan la xanaa moom waaw léegi boo saxee ci lii doo am problème kon nag lii mooy tawhidu Ibrahim yi bi nga xam ne mooy tawhidu manaami ci ya xar ci dimbale boo gisee topp bàyyi topp xam fi ñu wax moo la mën a dimbale ci tawhid bi déglu de laa tadriboo abada laa tastimoo abada wa in duribtum fa sabrun innakum subru laa tastimoo bul xas yàq der ah, abada laa tadriboo bul dóor abada sa loxo bu mu jog sa nañ bu mu yàq derum nit wala mu xas nit tey bul dóor waaye dóoratu même bu ñu leen dóoroon fa sabarum boo nit dikkoon fekkal nga toog mu dóor la mbëkk mu ñal de waaw ndax loolu yomal jëkkal bàyyi te tey booboo ci dugal doo doo doo doo wax doo ko de waaye dóoratu fa sabarum indakum subu ndax yéen groupe muñ kenn ñu ne ah, inna allaha maha aha te bàyyi ñi la ànd ak te groupe bi kuy fay kontre doo ci bokk seytaane tey fii la dëkk fii la dëkk nag samp bi taasam ne faye ko lan xew ku la ko biib biib ko ku la euh, domp euh, xot ko xaañu ko déedéet pays bii xam ki nga xam ne moom mooy seen taxawaay loolu moo ñu fi defar kon nag lii la kaay wax <clears throat> ne ko waxoon ah yow nag ki nga fi bëgg a indi daal mooy jaaxal ñun daal ñu ngi la defal lii ñu ngi lay defal lii ñu ngi lay defal lii ñu ngi lay defal la wannu ko di su làkk ah foog nañ ne ba waxee yàlla malaaka yi foog nañ yàlla d'accord na xaala rëbbu ne leen man dama dama xaala rëbbu rëbbu laa ko waxu de rëbbu moo wax rëbbu ba ne ini man nag aalamu xam naa te damay continuer xam maa loo xam ne laa taalama a ngeen xam mukk mukk mukk mukk yéen malaaka yi rëbbu ne man aalamu seet yow yaa eh, kii yow mi jàng eh, naw yi mu daa defa la ko def ndax la moom xam-xamam xam-xamu continue la rëbb nam xame woon démb noonu la xamee tey noonu lay xam ba àddee ko moo tax aalamu ole mu ne alimtu mu ne aalamu ci nga lii lii nag ci balaa nga man dugg xam nag fii waaw lu tax fii ñoom dañ ko war a def mu daaroo ñu def ci lii fii nag lu tax ñu war a fi def fii nu maa ñu def ci fii nu mu daaroo ah kon nag man de xam naa loo xamante ni laata la mën a xam leen ko ah malaaka yi loolu werante ko <laughs> loolu moom kon nag dégg leen ma léegi nag mu daal di jël aadama wa allama xamal na aadama aadama al asmaa turiya kullahaa yëpp la xamal aadama tur yëpp ba fi mu ne nii même téléphone yi benn bu ne bokk ak moom tur amul danu nekku doon ci bit bi moket bi nga xam mo joxal adama lepp lo xamne ne war nañ ko jeriño fi adama xamoon tu kon moo tax ñu sey un yubbi ha waaye walaa yubbi daal li nga gis ni radio bi du tay de démb won li nga gis yi ni yep waxo nañ ko ci amul luñ tudon lu nekk doon ci bit plan ba do ko gis tay kon nak wa allama adama al asma kulha yep ñu ne yantur ah ñu ne dafa am wa sufliyat ak asmaa yu féete kaw ak tur yu féete suuf gis nga suñ tur yi ñu tuddee nii dafa am turum tegee pour ñu mën a ràññeelee ah baaba max waaye su fekkoon nañ delloo ci tur yi nga xam mooy turu fàddiyaar ya képp nooy wa nit nit nun tudd ñun ñëpp benn tur lañ tudd nit ee nit ee nit boo ko woon koy wuyu moo tax nag tur yooyu moom ca biir dafa bennoo waaye boo dikkee ci biir ah baaba taal kenn ku ci nekk lii nag fii nag yii nañ ko indi nag pour xamalante moo xamal ko fi yëpp ku laa léegi nag <clears throat> yéen ngeen ne lu taxam li ma def kaay leen nag suma aradahum moo gaar leen xaalal malaaykat yi malaaka yi mu jël tur yëpp gaaral ko malaaka yi waaw lii lan la xam nga malaaka malaaka xaalamul arwaax la nekk xamul lii malaka xamul dara la xamul mooy leer rek muy indi nak tur yi xaaral ma am na am nañ tur yi léegi nag suma adama alal malaaka fa qala an bi ooni wax leen bi asbaay haulaa yi tur yii nii in kuntum saadiqin ganaa ngeen wax ne ki ma fi bëgg def wax ngeen dëgg damaa bëgg ngeen dëggal nag lii nu tudd waaye yàlla yaakaar naa kum dëkk kum ndënd gaa malaaka yi xoolante <laughs> in lañ leen tontu xaaloo ñu ne ko subhaanaka <laughs> hee seet nga mukk mukk ñun lañ ci njot dañu juumal gis nga malaaka yi loolu kiiraay la woon ñaaw njott ñaaw njott moo leen jàppoon léegi ñaaw njott ñu nag dañu juumoon sax subhaanaka mukk seet nga loolu may baat subhaanaka ndaxte ñun dañoo saabal naa yàlla saabal naa yàlla luy saabal na lu mu tekk ci aw ci wolof tekkiwul dara ñun am baat yoo xam ne ko fekk ci arab ñu bàyyi ko ci arab waaye sàbbal mooy setal bi maanaa jàppoon naa ne lii amoon nii tey xam naa ne nii la amee set nga loolu mooy kumpa ko dañ kumpa ko dañ mooy te lii ku yàlla koo xam ne dem nga ba nag dëgg dagg yàlla rek a xam lu mu wax kenn war ca teg baat xaaloo ñu ne ko subhanaka set nga laa elma amul benn benn benn kat xam-xam lanaa di ñu ñeel illaa ma lu may xam-xam boo xam ne alam taa xam yow loo ñu xamalul ñun xamuñ ko ah yow mi nga xam ne yaay <coughs> grammaire laay naa jiitul jin si jëf-jëfi inna benn saw bi si rabaa xabar loolu nga jàng léegi nag lu tax ko nag laa elma la naa loolu boo koy firi kon doo ko laa elma amul benn benn xeetu xam-xam ndax jinsu xam-xam rek ngay daq boo koy firi da nga amul benn xeetu xam-xam la naa ñu kam illaa ma alamtanaa lu may loo ñu xamam ah innaka yow anta yow alalimu yow dong yaay ko xam alhakimu yow dong xereñ ba gis koo gisee aalim aalim yàllaa ko jox moo tax ba bàyyi mu ne borom xam-xam yàllaa ko xalal ci xamam ko moo tax kenn warul ko doy dal boo borom xam-xam nga ne ko sa kaalas rek ñu ne doy dal nga xam-xam waaye nag suñu borom xam-xami tey nag dañoo ñàkk fayda ba tax ñoom ñooy tax ñu leen di ñàkkal fayda ah, Eh, elimaan yoo xamante ni ñooy takk sagar dégg eh, eh, nga maam de kii elimaan jiite yow ko xamante ni yaay njëkk gëmal yàlla gannaaw yaay njëkk gëmal yàlla kay lu ñu def policier ñu moo fi nekk de man damay wax loo xamante ni mooy suñ gàngoor léegi bañal dëkk bañal fen ak noo ko mën a bañee waaye ko bañe ko ci yoon bul ko dañuy diw mooy sama partisan diw sama partisan bu man du ma dugg ci loolu mukk kon nag ñu ne ko ah, laa ilma lanaa illaa ma alamtuna innaka wér na ne yow anta yow rek rek al alimu yaay ko xam moo tax al googu al istiqraaq la yow dong nga xam parce que gis nga fi mu nii turi yàlla yi nit ñi bu ñu ko fi def dañu fi dem mbokkaale al alimu yàlla rek a al hakimu yàlla rek a al kafuuru moom dong mooy jéggale al karimu moom dong tedd lii nga ko jëlee par benn par benn koo jël doo ko kon nag. yow foo jëlee xam dañ la ko dañ ko dañ la ko ah, jox sa xam gi connexion la xam nga connexion saxul foo nga xam ne mooy centre bi joxe connexion centre boobu nag ñoom dañ connexion seen sax na waaye centre bi nga xam ne mooy centre connexion dëgg mooy centre bi nga xam alxaayit si wal maa ni kooku moom moom mook takkiwin bi ñoo ànd boobu moo sax waaye bu nga xam ne mboo Sénégal bi ak yi day toog yàgg mu daal di fatt ah, xaala gannaaw nag malaaka yi léegi ah gis nga borom xam-xam bàyyi ñes boo gisee mu rawoon képp koo xam ne dangay ngay coow bu ngeen dajee ci xam-xam rek nga daanu waaye baax la ak baaxuma yaa neex ma ak neexuma loolu duñ ci xuloo malaaka yi bañ indee dañ leen proposé ne xam-xam ak yu wax leen ñu nangu ñoom waaye nag borom xam-xam bu xam ne dafa war a nangu ne xaw ma waaye nag xamuloo ne man xam naa dinaa ko leer moo ñu indi musiba ñoom malaaka yi ko ah laa ilma lana illa ma alamtana amul benn xam-xam nooy xam innaka anta al alim al hakim cey waaye yàlla toog ñu jàngi alquran ni malaaka yi defee tawhid nii nangu boo amee échec da war a nangu ne am nga échec ah fekk aadama moom mbir mi xam na yëpp xaala ne yaa aadam e aadam an bihum jàngal leen an bihum soloo leen bi asmaihim turi Ah, wax leen turi danaa gis li tax mën a andiwu léegi mën a soloo leen xam nga luy soloo leen gis nga xam-xam bi nga xam ni tey bul yaakaar ne nga xam soloon nañ ko démb nañu ko soloon tey démb ah, lañ soloon ah, li nga xamante ni mooy xam-xam bi ñu nekk tey andihum moo tax boo wax bu ëllëg mu ne allimhum loolu mooy sababu andihum solo mooy luñ la loo xam ne ma dama la yónnee message bi di nga kenn ku nekk keroog nga jot sa message xam-xam ba ngay dikkee fii yaa ngi nëbbaale ma diri naa ko barki dem ba nga dikkee te yàlla mooy alim yow doo alim mu jox la xel envoyé la yàlla mooy ku dund yow dund woon mu jox la xayaat kon nag lii an bi hum soloo leen bi asmaay ha asmaay turi gaa yi ah léegi nag gaa yi tax gaa yi taxaw ñu ngi koy malaaka ñu ngi koy ku ñu jàngale lañu bëgg aadama toog de professeur di leen waxal lii mooy lii lii mooy lii waaye nit ñi nit ñi ni ñu koy jàppee ni mel na dafa nekk rek nekk xam nga damaa bëgg ñu xool de damaa bëgg lu ñu nee def xikaayaat yi xikaayaat yi nañ ko fa taxawal ko yow defe nga ne mos yàlla dina taxaw e, iblis taxaw aadama taxaw malaaka yi taxaw jibril toog Iblis di discuter ak yàlla si suñ noppam <laughs> waa xam nga loolu loolu war a seet assemblée bi ne assemblée bi ne <laughs> xam nga li ma de xamul sax ma lay wax nii nit ñi dañu xollul sax nu mu demee ndax nit ñi foto foto nañ ba mel ne Adama dafa taxaw fii waaye nag ni ñu ko ni ñu ko jàppee boo demee foofu.